salaamaaleykum chers internautes ak yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seen seen King Production ñoom lañ ñu nuyu di jox seen wàccuwaay tey nag ñu del ci waat seen quatrième numéro jooyu xol suñu gan di jigéen mu déplacé wu Mbour bu fii nii fas yéene partagé ñun di nekk ci xol soxna si na nga def sëñ bi maa lay fay bu baax a baax mm-hmm. mm, damaa nekk ndaw nag mm-hmm. doon sëy Euh, sama rakk bu ma bokkal benn baay moo nangu sama jëkkër. waaw moo mm-hmm. mën naa ne bi muy sëy si di jóge Mbour di sëy si Dakar moom moo ma toppoon ma dëkkee chaque jour di am problème ak sama jëkkër mm-hmm. su ma amee problème ñëw diis ko ko. foog ni ba ma ko koy diis dina ma ko fajal. ndeke mi ngi am relation ak sama jëkkër ci biir kër gi. Ah, te man yëguma ko. bi ma demee ba coow li bëri ma xam ne lii ëpp na ma doole. Mm-hmm. ci laa divorcé ak moom. ci laa divorcé ak sama jëkkër. am na ñetti ban. bi ma divorcé dellu mbuur ci sama kër papa. léegi sama jëkkër boobu tey moo takk sama doomu baay. waaw. sama papa moo ma maye. sama papa moo ko maye. sa papa non mais comme sa papa xam na ne sa jëkkër mooy takk mu ñëw takk sa rakk. waaw xam na ko. ndax xaalis kase kase kase moo ko ci dugal. ak jiital bi nga xamante ni sama tante moo ko jiital lu mu wax la wax lu mu waxul waxu ko man jouru mariage bi ci ngoon ba bàyyi takk gee ba ñëw ci lay soog a xam ne sama jëkkër boobu moo ko takk sama yaay ànd ak metit boobu ba léegi nii moo ko teg feebaru xel non ñun ñu ngi ci biir kër gi mais sama papa daf ñoo abandonné faaleetuñu man ak sama yaay nii la ñuy rombe ak droite léegi nag may ñaan may léegi nag ma ne woon naa ñëw fii partager ak yéen li nga xamante ne ni moom lay dund nekk xale bu ndaw di ñaan képp koo xamante ne ni koy dund koo xamante ni ndaw la di ko dund bu amee loo xamante ne ni mu ngi ci mu ñëw partagé ko ak yéen loolu laa am. ci benn fan ak fa jigéen mu sëyal la am ak yow ñetti bant ak amu euh, nu métti jur doomu métti nga mën ko toroxal te ak ki nga xam ne mooy ak bi bokkal benn baay li mu ci gën a métti nag mooy naqar bi ñu ko teg sa famille sa pap sa rakk ñi nga xam ne bu ñu dóorul ci mbedd bi foofu nga waroon daw làqatu ñooñu tey ñoo la xalaat

sa rakk jooju mën na ci am ay tànk seen wooy du rafet mukk ci àdduna waaw métti na trop nag mais yàlla baax na yéen ñi nga xam ne tamit yéen ñuy seetaan may répété leen ko numéro bi ci suuf woo leen ngeen ñëw fii mu ne jege li nekk ci xol et n'oubliez pas d'abonner merci beaucoup